waaw kon dañuy tàmbalee yi rek euh, diggante fi yeeg julli xëy na des na tuuti suñu laaj bu njëkk bi kon mu ngi jëm ci wàllu te mën nañ ko booleeg beneen bi mooy kii dafa dafay laaj ñi nga xam ne seeni boroom kër dañoo nekk ca tugal lan lañ leen di dénk keneen ki mu ne ki nga xam ne boroom këram nekk na ci tugal lu toll fukki at te dikkul kooku itam laka naka lañ ko mën a laaya biir mbokk yi euh, alhamdulilah ñu ngi sant suñ borom subhanahu wa taala di wax rek ni suñ borom yàlla dafay nattu ay jaamam ci façon nattu bokk na nattu bi nga xamee ne nii yàlla dogal na ko tey muy nattu immigration ca mooy soxna yu bari seeni borom kër nekk ci àll bi ay at mbokk nañu xam ne l'islam prévoirul woon loolu ndax xam ngeen loolu changement jamono moo ko indi bi tubaab yi imposé li ñuy tuddee ay séjour ki visa mais ba l'islam di l'islam lan la l'islam tëraloon benn borom kër amul droit bàyyi soxnaam lu mat juróom benn weer te fekk ni ñi ngi xam ne moom mi ngi ci jàmm ba pare ñëwul loolu la l'islam prévaroon xurul passé juróom benn weer ci jamono Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba nga xamee ni nii soxna si nga xam ne muñ na borom këram juróom benn weer ñu xam ne mi ngi jokkook moom mën naa ñëw waaye ñëwul ku mel noonu mi ngi nekk ci ak loro lor googu nag su dee mën na ko muñ dañ naan na nga muñ ndax loolu mooy la gën mais su demee it ba jàpp ne mënatula muñ ngalawaay na ko ñaan njëkk génn ci sëy bi ci njëkk su dee mën na caa génn waaye l'islam du ko may beneen troisième solution ca mooy jéem koo wuti feneen foo xam ne nii nekkul lu dagan waram xam-xam yi fañam la mooy ku réer ndax kooku jabaram war na ko muñul ñi naan deux ans ñi naan quatre ans ñi naan nangam mais waajaa ngi fii nekk boroom kër ñu gis ni dafa bàyyi soxnaam ko mel noonu six mois la ko l'islam may su ko defee bu doon góor ñi lañuy ñuy waxal dañ leen di wax ne képp koo xam ne am na ci ay moyens ba mu bàyyi borom kër soxnaam lu ëpp la nga xam ne mooy six su yee six yi passé na fu mu toll na koy téléphoné di ko ñaan di ko balu àq ca xam ne mi ngi koy lor doonte ne ni bokk na nag ñi gën a garawle ñi nga xam ne dañuy dem foofu takk fa jabar ba pare bàyyi seen jabar fii loolu moom mbokk da ngay gis ne faute mën ta gën a passé loolu ci gravité ndax muñ dana yomb bu dee ñun ñaar ñoo ko bokk yaa ngi muñ maa ngi muñ mais nga dem yor sa jabar te man mënumaa am jëkkër mbokk loolu erreur mënta passé loolu su ko defee daal ñu xam ne bokk na ci fitna yi jamono ji li ñu yàlla nattoo tey ca Omar ibnul la taxoon mu tëral six mois yi dafa gis benn jigéen ci guddi jigéen baa ngi nekk ci këram naan cay waay guddi gu leer gi ca man ooma kenn ko mu wéttali bu dul woon ak ragal yàlla day sama lal bi dana am ku ci wéttali Omar mer lool waaye waxu ko dara bi mu xëyee suba mu laaj waaw kër sàngam soxna sa fa nekk luy mbiram ñu ne koo ko jëkkëram dafa dem jihaad fi sabilillah dafa yàgg ca la dem ci doomam Xafsa ne ko Xafsa ah, yàlla du rus ci dëgg jigéen ñaata la mën a muñ soxnaam bu dee dafa tukki kooku wax ko weer mu ne ko wala ñaari weer mu ne ko waaw Omar ñett ba ñeent Omar na ko wala juróom mu ne ko déedéet su toogee ñeenti weer gisul sox borom këram xelam dana dem ci sëy ca la Omar bind armée islamique yépp ne képp ko defati au front ñeenti weer na nga nibbisi maadaama front ba dañ daan def un mois dem un mois retour mu nekk six mois loolu moo tax ñu wax loolu mi ngi noonu donte ne nag duñ la wax tasal sëy bi waaye dañuy xam ne am nga droit boo demee ba mënatoo mun nga tas waaye boo muñoon mooy la gën wallahu alam naam bismillah dafa tànn sunna di ko dund ndax mën naa nangu sëy sëyeeg keneen koo xam ne nekkul ci sunna ndax jigéen bi dund sunna mën na sëyeeg koo xam ne nekkul ci sunna ala kulli xaal waxuñu ne dafa xaram maadaama gisuñu ci moom muy def lu ko génne ci diine waxuñu dafa xaram doonte ne am na ñàkk dund sunna yuy génn nit ki ci diine am na ay mouvement yu bees ñu koy tuddee diine ñoo xam ne seen diine yépp mooy tëgg fecc naan kafe jaxasoo góor ak jigéen jàpp ne ñoom dañuy def ay leneen lu dul yàlla comme sëy yooyu moom dafa xaraam bu dee li xew suñu réew mi nga xam ne ñu ci bëri dañuy am ay sëriñ dañuy am ay nangam li ñu leen di wax mooy soo ko mënoon a bañ day loolu mooy la gën yàlla na yàlla yërëm suñu benn mag bu ñuy wax Souleymane Gueye yaakaar naa xam ngeen doomam Roqaya Souleymane Gueye wax na ma dégg mu ne man day sama doom di ko may koo xam ne dundul na mu sëy ba mu dund ba dee amul jëkkër moo ma ko gënal ndax tey nga jël sa doom may ko koo xam ne bu demee ci nit day suñu mbaxanaam suñu dàllam raam jëm ci moom waaw ndax jëkkër mën naa ñëw raam ci soxna du raam loolu day jafe su ko defee kon daal képp koo xam ne moom am nga choix ba ngay dugg ngal la waaye sunu borom la mu wax mooy ah, wala amatun mu'mina xayrun min mushrikatin walaw ajabatkum wala abdun muminun xayrun min mushrikun min mushrikin walaw ajabakum nga dund ak koy dund sunna ak lu mu ñàkk-ñàkk ak lu mu nekk-nekk ci jafe-jafe waaye dowoo ku dul yàlla du jaamu ku dul yàlla moo gën ngay dem di dugg koo xam ne ma nga naan yaa cheikh diw ay diw mi ma yaakaar jàpp ne yow da war a fonk lim fonk loolu daal ñu xam ne nekkul abadan lu gën doonte ne bu dee ne lam nekkee comme lañ koy waxee ci njëlbeen du lu ko génn ci diine waxuñu ne dafa xaraam naam nekk borom këram te waaye nag ñu ngi seetlu ne boroom këram ku ko bëgg la ñu ndax dina am baakaar ci loolu beneen bi mooy ndax dina am barke ci doomam yi ku mel noonu su dee ne moom mi ngi def waru garam digganteem ak boroom këram xol bi moom yàlla ko moom sa xol yàlla moo ko moom fexeel daal ba yow la ngeen di war a séq ci lal bi séq kook moom la ngeen di séq ci ëtt ba séq kook moom amaa nag la nekk ci sa biir xol ca manifesté ko loolu da ñaan yàlla dindi ko lan mooy màndarga ibaadu rahmaan mooy rabbana hëb lana min azwaajina wa zurriyaatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaama sunu borom mi ngi naan ibaadu rahmaan yi ca daa ëmb góor ak jigéen mooy ñi nga xam ne dañ naan yàlla yàlla nag ñu may sunu jëkkër yi ak sunu soxna yi sunu xol sedd ci ñoom te nga def ñu njiit ñeel jullit ñi maadaama sa jëkkër ku la yërëm la sa jëkkër mën na jëkkër mais nga am yow amoo cofeel ci moom foo tollu del ñaan yàlla yàlla yàlla nag ma may sama jëkkër ji ak cofeel dugg sama xol te it mbokk yàlla muy bëggloo yàlla muy bañloo yàlla mën na am ki nga xam ne da koo bëgg wu yàlla nga bañ ko baal dangay gis ne yàlla nattu na doomu aadama yi sax ñu man ko ci njabar doonte ne lu xaram la am na lu ñuy wax njabar al atf mooy benn jigéen mën na mel ni bukki nga bañ ko bëggoo ko sax mbindaan waaye mën nañ la njabar ba mu gënal la sa yaay waaye contraire ba jigéen mën na taaru lool nga bëgg ko lool mën nañ la njabar ba gis ko gis maam ko mën na ko gënal loolu njabarkat yi dañ koy def ci natt bu leen yàlla nattoo waaye yow dañ koy jaare ci njabar gu daggan gi lan mooy njabar gu daggan gi mooy del dékk sa loxo sa borom subhanahu wa taala foo toll di wax yàlla yàlla na ñu may sama soxna yi sama jëkkër yi ak sama doom yi sama xol sedd ci ñoom mi ngi noonu wallahu aalam naam fekk ki nga xam ne mooy jëkkër ji mi ngi bàyyi soxna si mu ci kër gi ndax dina jaaru mu continuer loolu ginnaawu ñetteelu règle bi ndax kas dafa am léegi borom kër gi ci li lislaam faratal ci moom faratal ko ci soxna si e, itamit e, mu doon lu metti loo xam ne man day dajooguma ak moom benn jigéen bu ñu fase mu nangoo toog kër jëkkëram ba iddaam jeex mu ngi noonu Sénégal ku góor bu fasee jabaram danaan ko defal noonu ci biti ku jigéen ki bu ko jëkkëram fase bu xëyee bu ñëwee du ko fi fekk waaye da nga war a toog ba idde bi jeex léegi nag idde bi jeex na léegi dañuy gis ne moom ajnabiyee la ci yow moo góor ñépp a yem ci yow su ko defee kon da ngay génn këram nga dem allahuma la dul xëy na xamoo foo jëm bu la nangoo foofu nga xam ne da nga xamul foo jëm mu toléré la foofu mais daal la nga xam ne moom ngeen séqoon ci sëy moom maadaama idde bi jeex na ci jëlaatu la léegi jeex na mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam na kii dafay laaj ci wàllu maanaam kaa bu jege boobu mooy ki nga xam ne dafa sàkku ci borom këram ginnaaw yi mu daal di koy fàtte mu delloo ko la nga xam ne mooy can ba ki nga xam ne dafa def uh, alxulu ku mel noonu amul idda bu muy jàppal borom këram idda bi buñ koy wax mooy ki nga xam ne dafa am talaaqu rajiiya jëkkër am kàttan mën koo jëlaat mais maadaama moom delloo na ko alalam waa ji nangu ko rek moo góor ñépp a ci daal yem léegi ku mel noonu dañuy gis ni dara nekkul moom mu génn dem fu mu iddawoo mu iddawoo fa li tax sunu borom subhanahu wa taala wax idda mooy laa tadri la allallaha yuxdisu bada zalika amra ca mooy ci biir idda bi yàlla mën na leen jubalewaat waaye maadaama yow da nga doon koo xam ne da nga koo delloo alalam góor gi amatul ci yow benn aq gannaaw ba mu nangoo jël sa alal mi ngi noonu allah subhanahu wa taala Euh, aawo bi nga xam xaal aaw bi ñu wutal ñaareel te yëgu ko li ñu jëkk a wax mooy jëkkëram def na toor jëkkëram def na toor parce que yow da ngaa nekk nit ngeen am kóllëre gu ngeen séq ngeen nekk yéen ñaar kese heure boo demee bay dugal troisième personne ci seen couple boobu war nga ko ci lay biir ñaax ko xamal ko ne defuma ko pour punir la te li bari jigéen ñi di tax di bañ seen wujju dañuy jàpp ne wujju bi punition la contre ñoom mais nga xamal ko du punition lii yàlla moo ko dogal nangam ak nangam nangam ak nangam fexe ba seral ca xolam moom la mag ñi daan tuddee takku dënn yaa ngi dégg defal ko loo xam ne xolam dana sedd ba lii du ko naqari am amma yow soxna si bu dee nee yàlla dafa dogal loolu am ñu xëy xëy na la sa jëkkër takk na euh, beneen soxna wallahi ñu ngi ma ci nettali benn cas boo xam ne ñu ne Pikine gii la xëye woon soxna si bañ koy waxee dafa crise foofu la faatoo ni ngeen noonu am na ci ñoo xam ne automatiquement da di jural ay dépression ak yeneen mais lan moo koy waral mooy ñàkk teewee seen séminaire yu demee nii ñàkk am préparation ci nekkat mën jigéen a julit la pourquoi du ma am mujj ndax damaa gëm sama morom yi ko am mi ngi noonu jàpp ne mu bañ laa bett bu amee it nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suñu borom mu ne asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum bari na lu ngeen bañ fekk moom moo gën ci am na nga ne yàlla xasbunallahu wa nimal wakil wajj bi yàlla na ko def mu gën ci man muñ muñ ko rafet insha allah yàlla dana ko def mu gën ci yow yàlla na yàlla def ko mu gën ci jigéen ñëpp. def ne borom këram daal ba mu diir boo sax diir nee su dee ne laaj bi mu ne sama borom kër daa fiir lool ba doo tax day du bëgg sax ma génn kër gi la ñuy wax mooy mbokk bu dee fiir islam dafa bëgg fiir mais l'islam dafa am ñuy jaawale fiir ak ndof am na benn waay boo xam ne dañuy nettali ne day fiiree jabar ji boo jabar ji demee yàgg sax day duggawum ci néeg na ko ubbil sër bi moo xool xam nga yooyu mbokk ak ak ndof la su ko defee kon euh, ku mel noonu yow jigéen nga la waay jéemal rek def bànneexam xam ci xam ko ne islam araamul jigéen génn su ko defee nga xool bépp génn booy génn mu nekk génn farata ci yow génn boo xam ne danga koy leeral ne fii laa jëm génn boo xam ne bu waxtu wa jeexee nga nga dellu si parce que tamit loolu àq la boo xam ne sa góor lu mu fiir fiir fiir islam yi la wax ne toogal ci kër gi na poto abadan la nga xam ne mooy sa àq ci dox seeti say mbokk seeti say am di jàmm ak euh, même bu doon liggéey sax nga génn liggéey liggéey boo xam ne nii du la yàqal sa àqu kër loolu yi tamit da ngay gis ne lu jara bàyyi xel la donte ne ne temps bi moo ñu tànc waaye liggéey boobu it bari na lu muy yàq ci ay sëy ngalla waaye jigéenu jullit na ngay wax foo tollu priorité sama sëy xamal ni liggéey mën na nekk waaye priorité mooy sa foyer jigéen place bi gën a kawe nekkul palais de justice nekkul assemblée national nekkul université nekkul fenn place am ba gën a kawe fañ koy laaj réussite moom mooy ci kër ga te wallahi da ngay gis ne am na ay ay ñoo xam ne ñu ngi nekk ci congrès américain ñaar ñoo xam ne ñu ngi ci wax ay wax yu am solo kenn ki mi ngi wax ci congrès bi mu naan yéen jigéen ñi bu leen jàpp ne Ah, su ngeen génnul rek du ngeen jëriñ société bi mais jigéen bi gën a jëriñ société bi mooy ki toog këram uuf njabootam yar leen la nga xam ne mooy yar boo xam ne yar bu baax la ba di wax ne na ngeen xam ne da ngeen di sonn li ñu am ci CIA am ko ci FBI am ko ci lu nekk di maati nit ñi duñ mën a réussir jàmm am Amérique tant que jigéen ñi delluwaatu ñu ci kër yi yar la nga xam ne moom mooy doom yi su ko defee kon loolu la bu ko lépp nag liggéey boo xam ne day yàq sa foyer ngalla waaye jigéen xamal ne priorité mooy sama foyer waaye encore araama la liggéeyu jigéen fii yëg nekkul di jalgati la nga xam ne mooy sa aqu sëy mi ngi noonu wallahu alam naam euh, ki nga xam ne daal maanaam daf ne borom këram moom bi ñu ko takkee ba léegi daal daanaka saa bu ko soxlawee ci daal bi rek lay waxtaan ak moom ma ne lan lañ koy euh, ci loolu ala kulli xaal mbokk loolu mooy góor ñi nga xam ne dañuy dugg ci sëy ci amuñu benn préparation mooy xamuñu ah, ci gàttal ay seer lañu rek waaw mbokk ab sëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu daan ñaax bu ñu sëy ni bàyyi may di sëy doomu aadama du nuru nuru lu bàyyi ma sunu borom bu ne kal ximoor kal nangam loolu da di xas bàyyi moom moo dajeeg moromu dayu moromu bàyyi moom rek jóg dal ci kawam waaye mbokk nit dafa am loo xam ne dafay jiitu la nga xam ne mooy jiitu ba ñu yëg ne yéen yegg ngeen ci soxla ko ngeen di war a def loolu amma bu dee euh, góor gi nga xam ne dafa jàpp euh, soxna comme ab réservoir rek mbokk loolu kooku moom amul ak nite sunu borom bi muy wax naan ashiruhunna bil ma'ruf loolu day nekk ci am ak ñoom jàmm ci lu nekk xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xataa am nañu aada yu bon yu nekk suñu kaw gi dañ naan yow boo aayee fii fee sax waroo faa dugg kaza wa kaza yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ay temps mi ngi dajal woon juróom-ñeenti soxna ci lu ko yàlla jagleel moom kese ci xeet bi dañ daan def amul woon benn saal néegi soxna yi lañ daan daje ku aayee soxna yi ñëw ci sa néeg ci néegi ki aayee bu ñu fa nekkee ba guddi jot yonent bi génn ànd ak ñoom ku nekk mu gungale ba dugal la sa néeg yonent bi mosaan génn tàkkusaan kër yonent bi kenn daw fa dugg lu dul ku ñu jox ndigal ci lekk comme ni ko jàngee néegu soxna bu ne a fa dugg ku ne dana fa dugg laaj la waxtaan ak yow génn dem ci keneen laaj waxtaan ak yow dooga dem ba baat mujj ci ki muy ma amma sunu aaday maam yi malheureusement ma maam ca la ak seeni maam ñoom da ngay gis ne ku góor kii dafa war a nekk benn kilifa goo xam ne day ber fële néegam soxna si day bàyyi ba suuf sedd deux heures du matin mu rocceeku ndànk ñëw dugg trente minutes mu génnaat dem gis ngeen loolu mbokk dañuy gis ne loolu sunu maam yi ñoo ko def mais dañu amul woon savoir vivre te it xamuñu woon diine l'islam waaye ku xam njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ne góor ak jigéen dañu war a nekk couple bu ànd vingt quatre sur vingt quatre waaye ab lal kese waru leen boole wallahu subhanahu wa taala alam naam ñu sama boroom kër bi muy may takk daf ma digoon yu mu deful dara mbokk dig yooyu ñaar la ñaari dig la mooy dig bu njëkk bi moo jëm ci wàllu can bi moo di ne da ñëw bëgg koo takk soxna si moo am droit laaj lu ko neex mu ne la man kat danga may utal kër boo ma takkee. loolu nga ne ko d'accord naa ci loolu su boobaa loolu dañ koy boole ci can gi ndax mooy charte bi mu la wax heure bu ñu demee dugg ci sëy bi ca loolu defuloo ko am na droit génn ci sëy bi ngir loolu yaa ma diggoon nangam defoo ko am naa droit génn ci sëy bi mu def na yeneen digg yoo xam ne moom takk na la dig la ay dig yooyu nag c'est des promesses donte ne dig yooyu tamit l'islam borom bi mu ne walazina hum bi ahdihim raahun mu ngi noonu ñi nga xam ne ay jullit dëgg-dëgg dañuy sàmm seeni dig waaye ñàkk a matal dig boobu it bàkkaar la bu mu am digganteem ak boroomam waaye nga lawa yow soxna si boo ko def mu nekk source ngir yàq la nga xam ne nii moom mooy sab sëy mi ngi noonu allah subhanahu wa taala naam li mu naa moom yoon ba léegi jege euh, ñaare yi daal mu ngi jéem a defar ñetti yoon ba pare jege yi di jéem a defar mooy dañu waroon wax jege ñaale yi di gën yokk ak yàq mbokk jigéen buñ ko xisee ba fase ñetti yoon lenn dong mooy tax mu mën a àndaat ak jëkkëram mooy beneen góor takk ko ba ànd ak moom ci lal su dee kooku fase na ko ca lay doog a mën a ñëwaat ci jëkkëram mais ab sëy buñ ko xisee ba tas ñetti yoon kooku c'est fini kenn dootu ko mën a defarati loolu moo tax ba it jigéen bu nekk war nay bàyyi xel lan mooy di tas sëyam su dee tas na sëy bi ba da ca dellu ay waay la taxoon nga tas ko moytu ko su desee ñaari yoon nag waxi noppi waxtaan waxtaanal ak moom boo cay dellu xam ne bii mooy suñ dernière chance loolu ñu bàyyi ci xel bu baax te it yàlla tooñul doomu aadama yi man jàpp naa ki nga takk nga xool xool ba ne kii daal dama koy fase nga fase ko mu dem nga dem takkaat ko yàlla mënal takkaatal nga takkaat ñëw xoolaat xool ne ay li kii dama koy fase nga fase ko mu dem borom ne la garaawul ba tey takkaatal nga dem takkaat ñëw boo ko fasawaatee nag boo wëlbati ko ne da koo bëgg dañ laa war a ba ngay bëgg a dee gis ngeen su ko defee daal mbokk yàlla wàccoo noog ñun bi mu ñu mayee ñetti passé waaye gannaaw ñetti passé nag moom jeex na mu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala waaw kon voilà ko نعم نعم بسم الله wa ah ah waaw hmm. <laughs> oh, oh. waaw am na benn góor guy laajte fii nee na dafa gis ne jigéen ñu bari du seen jëkkër dee takk ñaareel dañ naan ko yow matlu ba pare di takki ñaareel mooy say mooy matul ala kulli xaal mbokk nañu xam ni jëkkër dafa am lu mu siq ak yow loolu mu siq ak yow mooy na la may foo dëkk na la may dund na lay wodd loolu mattal na ko ci yow suy takki ñaareel sa yónniwu ci yàlla waxu ko demal ba nekk millionnaire doo ko takk ñaareel kenn matliwul même ñu amee million dañu jàpp matle wuñu li nga xam ne daal lislaam du ko nangu mooy soxna si nga takk ko lan ko yoroloon nga takk keneen tax ba mënatoo ko def képp koo xam ne li ngay nekk ak say soxna soo takkee keneen dootoo ko mënati loolee lislaam du gërëm nga takk beneen soxna abadan moo tax suñu borom ni fa in xiftum alla taadilu fa waahidatan aw ay malakat ko su ngeen demee ba xam ne mënu leen a maandu te bokkul ci maandu kii nga am benn situation boo ko tegoon bëgg bànneexu bakkanu keneen rek tax nga dem takk keneen bu ko defee dépense ba nga doon joxe fii nga xaaj ko di ko jox ñële wala bañ leen jox dépense islam du nangu loolu waaye daal yow soxna si yéet ragalal yàlla su dee ne borom kër gi lam la daan defal dara changé wu ci bul ne dafay war a nekk ba nekk ab millionnaire pour takk keneen abadan am na droit tekk keneen xoolal sa baay mi nga war a ñaari jabar ñetti jabar te mën nam sa jëkkër moo ko ëpp situation mi ngi naan wallahu subhanahu wa taala <laughs> kii dafay laaj ndax mën naa ñaan tas ñaan baatam jëkkëram mu jëkkër yoo xam ne jox ko yitte jëmul yitte ay doomam ak itam mu jëm ci taaram ba tey amul ak nooy ci mën a wax wax bu sedd beneen kon nan lañ koy ala kulli xaal euh, mbokk jullit euh, li ñu koy dénk rek mooy na muñ nañu xam ne moo euh, mook chirurgie ñoo yem soo demee hôpital am na foo xam ne nii dañuy xool léeg tànk bi bu ñëwee di metti lu ne dañ ko fa jaarale ba la ñuy mujj xalaat mooy nañ ko dagg léegi-léegi wenn lay doon yal na yàlla sàmm leen ci ween bu ñu xool lu ne ñu amul solution nañu dagg ween bi loolu mbokk mooy tas su ko defee yow jigéen heure boo nekkee sa jëkkër mu am ay xat-xat na nga xam ni nanga muñ muñ boobu ngay muñ nañu xam ne jaamu yàlla bu rëy la te wallahi boo waxtaanoon ak sa maam yi dangay gis ne daanañ muñ lu raw loolu loo xamee ni nii ah, la yàlla def subhanahu wa taala mooy yàlla da leen a mujjee fay lu baax dem leen jàng suuratu yunus yusuf sunu borom mu ne innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajral muhsinin képp koo xam ni da nga ragal yàlla te nga muñ yàlla day du neenal yoolu ñi nga xam ne dañuy rafetal euh, yàlla xam ne am na loo xam ne man sama maam la daloon benn soxna la takk am na beneen soxna boo xam ne ñu ngi yoroon seen néegu ñax seet bi war a ñëw mu dem jël néegu soxna ci aaw bi daal di koy vider jël seet bi daal di dugal foofu fekk aaw ba kat ña nga ca toole ji leen bayal bis aaw bi ñëwee gis situation bi mais lan la mujj def ah wax sëñ bi lii la defe daal di muñ néeg wala bañ ko waajal mu jël ay bagage yu mu dugal ca xam nga loolu dañ naan lii fóoli la nan la nit mën a muñe lii waaye maa ngi leen di seedeel tey muñ googu mu muñoon soo demoon tey jub kër ga nga xam ne fala ko dale woon yaa ngi seen ay immeuble yu fa nekk yoo xam ne nii ñépp ay sëtam la ñoo ko tabax ci néegu ñax boobu mu muñoon xoolal la ko ci yàlla fay su ko defee kon yooyu dañ lay wax ne euh, nekkul loo xam ne dañ leen ne farata la danga war a toog muñ ko comme jaam waaye dañuy wax ne jëkkër ju naqari deret jëkkër joo xam ne faalul jëkkër ju nàngam maadaama julit la yàlla natt na la dugal dugg nga ci sëy bi ngalla waaye muñal ca yàlla tax insha allah lu mu yàgg-yàgg yàlla subhanahu wa taala dana mës a seral sa xol mi ngi noonu wallahu subhanahu wa mu ne ginnaaw bi nga xam ne takk nañ ko dëppoo woon na ak borom këram ci ne saa bu amee yitte bu mu bëgg a dox mën na ko doxi mu ne ndax léegi dina mën na participer ci benn formation xam ne am na ci luñ ko ciy ji luñ ko ciy jox moo xam kàddu la wala ci aju ngir mu daal di koy borom këram te fekk ko loolu lu ci lislaam ala kulli xaal euh, formation bi muy def ñu koy fay ca fekk boroom këram yéegu ko loolu mooy lan li ñu mën a xam daal moo di ne ni jigéen am na droit génn këram dox mbiri àddunaam waaye lépp loo xam ne da koy def na ca am ndigalu jëkkëram ci loo xam ne lu ñuy dogal la wala loo xam ne aada moo ko xam masalan tey su ma doon dem sama jëkkër permettre na ma ma liggéey du ne chaque jour bala ma dem dama war a ñëw tàggu ko bu heure liggéey bi jotee su ma liggéeyee jot naa ci ndigalam sama jëkkër xam ne dama war a dem marché bu heure jotee war naa dem marché mais bu dul looloo sa jëkkër a war nay xam foo nekk masalan séminaire bii ngeen di def nga war a xëy suba ba peut-être timis doog a ñëw war nga wax sa borom kër man kat maa ngi place sàngam loolu daal lañ ciy wax su ko defee daal même bu dee nee ab liggéey boobu muy wax formation bu mu mën a doon nekkul loo xam ne wóor na ne ne lii bu ko jëkkëram yëgoon it amu ci benn problème ci amul benn gàllankoor gu muy am ci kër ga loolu da ngay gis ne def ko dara nekku ci bu dee ne benn wor amu ci waaye li ñuy wax daal toujours mooy jigéen fexeel bi ba ñu réeroo ak sa borom kër bokk na ki gën a neex tàggu ki nga xam ne boo ko tàggoo du la tere mi nga noonu su ko defee loolu la fexeel daal lépp la dugg nga waxtaan sa borom ko tàggu ko ci loolu da gis ne day doon lu yàlla di barkeel wallahu subhanahu wa alam naam naam bayko ñi ne euh, jigéen bi nga xam ne génn na lu tolloog ñetti at këram ci lu ñu fase ko euh, bàyyi kër gi sant ko kooku lan mooy atteem jigéen bi jigéen bi génn këram def lu ñuy tuddee abandon de domicile li ñu koy jëkk a wax mooy jalgati na sunna sunu borom subhanahu wa taala mu ne tilka xududullah wa man yataadda xududallahi faqad zalama nafsa kooku jéggi li yàlla tëddoon tëraloon ci ay frontière ca mbokk jigéen amul droit di génn kër jëkkëram un jour lu dul ci ndigalu jëkkëram su demee ba nga xamee ne juyoo nag jëkkër ji ba jàpp ne sëy bi daa war a tas am na kàddu gu ñu xam ci aada mais l'islam reconnaître ko kàddu googu may fay wala abandon du domicile soo demee ba jàpp ne sëy bi mënatoo cee nekk wax nañu sànq ne say kilifa ñoo la maye woon waxtaanal ak say kilifa nga ne leen sëy bi mënatuma ci nekk ñu xool yan yoon la ñuy mën a def ba teqalee leen ci jàmm loolu la dina reconnaître sunu aada yi tribunaux yi sax loolu la reconnaître bépp jigéen bu jël ay bagage dem dañuy gis na tu kon fexeel ba sa jëkkër lu mu la mën a def fexeel jaar ci yoonu lislaam ba génn ci sëy bi ci jàmm mais buub say bagage dem loolu beneen mbir la amaa bu demee ñetti at ñeenti at fukki at tant que jëkkëram fasewu ko ba tey dañ naan jabaram la loolu ñu bàyyi ci xel bu baax tant que jëkkëram fasewu ko même bu ñu teqalee ko woon dix ans it ba tey jabaram la amul droit si ak keneen loolu mi ngi noonu Allah subhanahu wa taala alam